Xaaye Guèye bu dëkk ci dëkk bi di chargé de mission AMS président AMS Alioune Sall. waaw euh, est-ce mën xam ne posé ngeen ko léegi ci kaw table suuf euh, dëkk bi lu jëm nag ci wàllu waajal ak euh, seen gàmm. waaw mën nañ ci ñëwaat parce que jafe-jafe yi buñ ko càmbaree ba xool ko ba dëgg-dëgg yi ci gën a mag ñett la ñett yooyu tamit am na benn bu ci gën a far ñett yi mooy benn yoon lañ bëgg bu jógee Jaksaaw jëw ci dëkk bi bu ci mënee yem baax na bu mënee jàll ba tubaakan Kane moo nu gënal relier ak yoon bi jóge Mbaba Garas ak Ngaay su fekkee mënul yem mu yem ci dëkk bi euh, beneen bi tamit mooy problème mu santé ndax dëkk bu toll nii am case de santé boo xoolee ni mu mel euh, di am case de santé loolu kon problème mu santé am nañ ko foofu beneen bi ci des tamit ndox la parce que dëkk bu toll nii tamit am habitants yu toll nii président bi di xeex exode rural bi dëkk yu bëri génn kër yu bëri di génn ñun ñu yokk vraiment war nañ am forage boo xam ci nañ sukkandiku su ko ñu mën di bay noor di bay nawet jur gi fi nekk di mën di naan du ñu am problème parce que bu toll nii dëkk euh, di naan ci benn tuyau boo xam mi ngi dox 4 kilomètres et quelque jafe-jafe la ma gis ni programme comme président dafa def benn programme bu ñuy wax PUDC ñu gis ni région de Thiès département Tivaouane arrondissement Mérina Dakhar commune de Koul war nañ ci mën a am donte 10 kilomètres wala 12 ñu jaarale ko fii mu nekk donte Rara te jàpp naa lu war na mën a nekk parce que programme PUDC war na ko mën a régler bu ko PUDC mën rek ñu jël ko ci programme Puma ba jàppee ñu kon ñun nekk di Puma muy programme bees bi mujj a teg ñaar yooyu daa war na mën a ñëw ñu am piste rurale bi nga xamante ni moo way jaar ci dëkk bi di parce que dina faciliter suñu li ñuy def dina gën a yokk lii parce que yoon bi métti na trop te dëkk bi amul lu moom lu jëm ci wàllu courant am ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu compte waaw courant bi tamit ñu ngi ciy gërëm PUDC parce que courant bi ñëw na bi mu ñëwee tamit ku ne xam na ni courant bu ñëwee courant Senelec la mais dafa am beneen beneen sous bu koy jël boobu nag bi mu indee compteur yi dafa am compteur yoo xamante ne dafa nekk compteur yoo xam dafa génne lu bëri loo xamante ne ci xaalis jàpp nañu ñun taaluñu ko te comme dëkk bu ndaw la ñu war a nekk comme dëkk la boo xamante ni village la nekk ci benn commune ñu xool ni euh, facture yi na te dëkk bi ñëpp ñoo bokk nekk benn ñetti facture nag la ñi ko indi ñoo ni moo ci feer loolu nag day war ñu toog ñu ñëpp càmbar ko parce que nag li may wax toujours euh, waxtaanu biir néeg la suñ ko waxtaanee ci biir xool ba xam nan lañ ko mën a defee mooy li nga xam moo gën courant bet gis nañ ni euh, euh, lamp yi nga xam moo daan tàkk ci mbedd mi maire bi li mu wax leer na nee na moom mënu ko fay te loolu tamit problème lay nekk parce que tamit bu fekkee lamp yi ñeent ay lamp yu tàkk ci mbedd mi maire bi wax ni moom mënu ko fay parce que day nekk dafa diis ci moom day xaw mi ci ñun te tamit bu fekkee da nga fay say làmp fay sa kër fayaat na benn mi te man li ma xam mooy facture courant bu am am na 2,5 pour cent yoo xam taxe communale la taxe bi nag bu fekkee da dem ci ASER ASER war na ko delloo suñu fay suñuy courant bu fekkee tamit day demaat ci maire bi maire bi ko war a fay loolu moom mooy li nga xam moo ne moom laa gis ci courant bi. kon ñoo ngi nuyu waa presse bépp te leen sant te tam di nuyu waa Darou Gueye tey dana ñëw fii donc pour CLD gàmmu Darou Gueye nga xam ne fukki fan juróom-ñett lay war a am ci weeru février weena jëm. tey nag feeñal na fi ay jafe-jafe wala ay bëgg-bëgg bëgg-bëgg-bëgg bi nga xam ne moom lañ ñëpp xam ne moom bu tar la mooy yoon wi ndax soo nee dama bëgg dem Daaru Kay da tiit ndax la da tiit pour nga am yoon woo jaare dafa jafe yoon wi day suuf soo nga xam ni gannuus la te ne gannuus oto yi dafay càng di faral di moo tax daal yoon woowu moom danoo bëgg njiitu mi nga xam ni moom la ñëpp di taalal loxo bu jaaxlee mu bàyyi xel Darou Gaye surtout ci deuxième phase yu si PUDC bi nga xam ne mooy bëgg a ndax kat yoon su amee jàpp naa ni pour Darou Gaye jëm kanam moom lee doon ndax ñoom lépp li nga xam ne mën nañ ko duñ ci xaar kenn war ne Darou Gaye su ne mën nañoo defar ab tali loolu mun nu ko maire bi tam su bëggee lu neex waa Darou Gaye rek ba naa leen defar ab tali day wax rek li ko neex war ne maire bi ak budget ak budget commune bi yëpp nag kenn mënut defar tali tali moom nguuroo ko moom électricité ñoo ngi sant bu baax ndax daaw doon na ko wax waaye ren moom ñëw na loolu tam kon nit na soo defee lu baax war na sant électrique bi vraiment ñëw na waane nag am na ay rëq-rëq yu ndaw yoo xam ne daal ci compteur yi la loolu nag diggante ki nga xam ne mooy concessionnaire bi ak ñun ak commune bi nañ ci waxtaan ba xool daal nun koy régler wax ngeen itam wàllu ndox ndox jàpp naa ne du jafe-jafe waaye nag mën naa nekk jafe-jafe ndax Darou Gueye mi ngi amee ndox ci Fass Diacksao problème boo xam sëñ Abdou daa daa baax moo ko defan fee jëlee xëti ndox man ab dëkk nag bu dee màgg nekkan ñaar téeméer rek léegi mu léegi mu nekk ba dem juróom benn leen daal may pour ñu naan day daal di am jafe moo tax PUDC bi tam comme am na pro forage boobu nga xam ne jàpp nañ ni programme nañ ko ci nan naan suñu borom suñu borom yeggal ko ba Daaru Gay ak dëkk yi ko wër am seen autonomie ndox nga xam ne kër boobaa jàpp nañ dinañ ci mën a naan da ci bay mais fi mu nekk bëgg na noo liggéey mais mun noo liggéey ndax nag forage bi soo ci bëggee bay boobu wëttuwul ki la ko joxoon dana ne kat loolu mun a nekk kon moo tax tam loolu ñu daal am suñu forage bopp Darou Gaye ak dëkk ko wër lu am solo lay doon pour nag wàllu santé bi wér-gu-yaram bi jàpp naa ni loolu li ma leen wax rek case de moom personnel bi mu war a am infirmier bokkuti ci sage bokkuti ndax loolu moom matron ak ASR yi ñoo fa war a nekk léegi nag am na décret boo xam ne avec carte sanitaire bees bi bépp case de santé bu liggéey ba sa liggéey ràññee ko de fait dañ lay ériger en poste de santé bu dee poste de santé nga am nga liggéey nga liggéey nga liggéey da nga nekk centre de santé centre santé bu liggéey da ngay nekk hôpital niveau un niveau deux ba niveau un niveau trois kon nag léegi daal nañ góorgóorlu ba poste santé bi case de santé bi du moins seen liggéey ràññee ba de facto dañ koy transformer en poste de santé boobaa dana mën a prétendre am ab infirmier ak ab sage-femme surtout que ren nee nañu poste de santé yëpp. dañ leen dañ fay ñi ñi nga amagul dañ leen fa yóbbu ab infirmier ak ab sage femme kon na nan fexe ñun Daaro Gaye ñu góorgóorlu ba bokk ci carte santé yàlla yi nga xam dañ koy ériger en poste de santé loolu moom bu nekkee njariñul dëkk bi la doon njariñul commune njariñul réew mépp naka ab dëkk bu dee at mu jot ay junni junni di ñoo fa daje di màggal seen ku leen jiitu di ko ñaanal baax na personnel de santé bu qualifié nekk fa ba ku fi am ay tolof ñu mën la jël en charge le plus possible kon nag jàpp naan daal ñoo ngi gërëm ñëpp san sant waa Daaru Gaye vraiment nu ñeex a leen ndax lépp lu man ñoom duñ ci xaar kenn kon nag nan ñaan daal suñu borom fekke ko ak jàmm te nag lépp loo nga xam jëlu engagement suñu borom jàppalenu ba duñ ci am kersa bu leen xoolee ñu xool ñu ne que li nga waxan def ko ko jërë ngeen jëf